Euh, foo xam parents yi ànd nañu ak ñun parents d'élèves euh, élèves yi ñëw enseignants yi euh, au niveau de l'élémentaire ñu gis ba lycée mais nous woon continuer te duñu xool aussi foo que ne mooy fii si Rufisque centre bo xamné mom moy mooy former ñii di jàngalé encore souvent c'est vrai que ñi ay élèves maîtres ñoo fi nek ñom aussi dañu am seen examen si formation la ñu nekk ñu ngi fexé pour que ñom aussi ñu mëna a

waaye mun naa wax sax même dembou am na ay camions yu bëri yoo xam ne nañu ministère dem si biir Sénégal même man bi ma mujjee def sama tournée fu mu munte dem ñu ne am nañu déjà suñu produit ba am stock ñu ngi stocké ay matériel mais comme maladie bi aussi xamuñu kañ lay jeex ñun pare nañu encore ñu ngi seet nan la ñu pour que mois de novembre suñuy tijji pour que produit encore mën a ñëwaat def nañ ba am financement bi ba pare ñu ngi wut ay matériel bu bëri pour que au mois de novembre ñu mun ko et puis que Covid su amee ak su amul yëpp. am vraiment ay matériel de lavage loolu dafa baax si école